c'était prévisible ah. choisir c'est éliminer loolu rek ngay wax choisir c'est éliminer bu ñu la tegaloon fii fukki oto ñu ne la tànnal benn ça veut dire que tu dois éliminer juróom-ñeenti oto yi loolu rek la donc partant de ce fait aucun choix ne pouvait faire l'unanimité xam nga nag unanimité ak consensus dafa wuute dëgg unanimité mooy lu ñëpp ànd consensus mooy lu ñu lu gën a bëri ànd tey jii nii nag maintenant est-ce que ce choix fait consensus xamaguñu lu leer moo di ni c'est un choix qui s'est imposé à Macky Sall. c'est un bon choix ou bien. non tous les choix sont bons. Mamadou ah Lamine Diallo c'est un bon choix keneen ak keneen. Euh, ñi nga xam ne prétendant yi. non tous les choix sont bons amul benn choix boo xam ne tu réunis toutes les qualités. tu as des avantages. Mm tu as des qualités comme tu as des faiblesses. Hmm, yoo xam ne ni war na mën a kii. bon ça c'est la première chose maintenant makisal Sall le choix entre. le choix de logique le choix de raison et le choix d'affection la logique renvoie à Amadou Ba la raison renvoie à Boun Abdallah Dionne l'affection renvoie à Abdoulaye Daouda Diallo ah bon mais la. mais bien sur que sama interprétation la. sa bopp c'est pas sa interprétation yow. d'accord voilà nekk lu dul sama interprétation. d'accord voilà maintenant xam nga. c'est bon bu loolu boo ko xoolee. Mhm. ça renvoie. à ce que je dis à un parallélisme entre Jacques Chirac ak Nicolas Sarkozy c'est-à-dire que Sarkozy s'était imposé à Jacques Chirac alors que Jacques Chirac peut-être n'aurait pas fait ce choix il penserait peut-être à Juppé à Villepin affaire yooyu c'est la même chose ici